ci euh, modèle ak euh, Nana dara alors tey dañ leen di présenter association boo xam ne ñu Nana wax na ko sànq euh, xamuñu ko bu baax et depuis très longtemps ñoom ñu ngi def ay action yu am solo. Mm-hmm. jëmale ko fii ci Sénégal. voilà Pape dañuy dem seeti ji Léo Club comme ni ma ko waxee sànq Léo Club ñoom depuis 1957 ñi ngi fi dañuy dem seetaani benn extrait daal ñu wat ci plateau bi ñu expliqué leen mu gën a leex. qui a été créé par le Lions Club International qui existe depuis 1917 au niveau international et précisément depuis 1954 au niveau du Sénégal. L'objectif du Lions Club est aussi l'objectif du, du Club et cela est défini par cinq axes que, qui sont la fin la vue, le cancer, l'environnement, le diabète. Au Sénégal, nous avons réalisé pas mal de choses avec nos pères fondateurs qui sont les lions on a construit des écoles, on a construit plusieurs structures au Sénégal ici. Et nous continuons à travailler pour l'environnement. Récemment, nous avons fait le nettoyage du stade Léopold Sénat Senghor avec plusieurs partenaires. Et cela ne s'arrête pas là. Dans le passé, nous avons fait le nettoyage de la plage de, Wakam, la baie de Han. On a fait plusieurs activités. Récemment aussi, on était au Lac Rose où on a fait le reboisement dans une école du Lac-Rose. Cette année, la présidente internationale a axé plus sur le cancer infantile, mais dans les années précédentes, on touchait à toutes les pathologies du cancer, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Et d'ailleurs, nous faisons des sensibilisations, nous faisons des journées de consultation gratuites en ce qui concerne le mois d'octobre rose et je pense bien que cela est prévu encore pour d'octobre. Notre sort

de 30 jeunes qui sont de diverses cultures, qui viennent de divers horizons. Moi-même d'abord, je suis ivoirien sénégalais et c'est comme ça que nous sommes composés. les clubs au Sénégal sont composés en majeure partie d'étrangers et je profite de cette occasion pour interpeller nos amis sénégalais à venir nous rejoindre dans la cause pour qu'on aide à travers eux, ils connaissent plus les réalités de leur pays plus que nous. Donc avec leur aide, on peut aider plus, on peut satisfait plus les Le Léo Club est une organisation qui a été créée par le voilà donc moom euh, mu ngi ñu doon expliquer mhm. euh, euh, association boobu mhm. ak njëriñ li nga xamante ni ñoo ngi koy amal fii ci Sénégal na voilà Pape moom mooy seen trésorier mu ngi tudd Moussa ma koy remercier de passage Léo Club nag comme ni ma ko waxee sànq 5 décembre 1957 la juddu ki ko créé mooy Jim Grave ak euh, William Ernest euh, ñoom ñu ngi nekk en euh, Pennsylvanie aux États-Unis ñoom ñoo créé Léo Club 7000 club la nag dans quarante dans 145 pays fii ci Afrique mun nañ ci compter ki nga xam ne mooy Cap-Vert Gambie Guinée-Bissau Guinée-Conakry Mali Mauritanie ak Nigéria ak Sénégal ñoom ñoo ci Afrique ñoom ñoo fi nekk voilà. euh, je ne sais pas comment expliquer ça va être un peu difficile mais pour juste expliquer ni Léo Club ñaar la yaa dafa am Lion Club mooy ñi mag ñi mooy ñi nga xam ne sont âgés de 35 à 65 ans ak ñi nga xam ne ñooy Léo Club 18 ba 35 ans Lion Club ñoom ñoo ñi nga xam ne ne tey jii ñoom ñooy financé tey école yi comme par exemple école HLM bi ngeen di dëgg dégg te mu nekk école Lion bi ngeen di dégg te mu nekk HLM boobu waa Lion Club ñoom ñoo ko euh, financé ñoom ñoo ko may waa waa Sénégal benn club la mais c'est que dañ ko partagé mag yi ñoom ñoo ñoom ñoo nekk Lion yi xale yi ñoom ñoo nekk Léo yi xale yi ñoom ñooy yëngu ci wàllu environnement sa veut dire euh, euh, reboisement nettoyage joxe donc euh, bu dee mag yi nag ñoom ñooy xool peut-être ay district de santé di ko mayee ci Afrique xool fi nga xam ne ne peut-être village bi kat dafay manqué hôpital wala manqué na fi école ñoom ñu dem tabax ko. Mhm. ñoom ñëpp benn lañ nag Pape mais c'est juste que ni euh, ñii dañoo jël séparé leen dix-huit trente-cinq 35 <coughs> ba 60 waxal léegi mag yi ñoom ñooy lion yi. Mhm. xale yi ñoom ñooy léo yi. Mhm. depuis nag ñu ngi réaliser ay euh, action yu bëree bëri comme par exemple Léo yi ñoom def nañ fi ay nettoyage ci bedd aan bi ci parc aan bi Soumbédioune Wakaam euh, euh, def nañu reboisement fële la Rose ak 300 plantes c'est vraiment à féliciter bu dee mag yi ñoom ñoom ñoo comme sànq ni ma ko waxee ñoom ñoo construire lion école lion bi ngeen di dégg HLM def nañ fi benn dispensaire ophtalmologique Baobab la tudd mi ngi nekk fële Parcelles Assainies euh, def nañ fi benn centre euh, des maladies cardiaques euh, mi ngi nekk fële Fann loolu les Lions ñoom ñoo ko def donc juste pour vous dire que ñoom ñëpp benn club la peut-être c'est un peu compliqué benn club la mais dañ leen a séparer le temps xale yi ñu leen di former di leen motiver pour ñoom ñu mën a nekk ay mag ñoom lan mooy seen rôle ñoom xale yi mooy joxe ay dons de vêtements dem ci orphelinat yi joxe fa ay lait maternisé dem ci village yi joxe fa ay dem nettoyer ou bien même joxe fa ay don wu lekk ñoom xale yi ñoom eh, en ce moment loolu lañ leen a dénk léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy mag yi lion yi nag ñoom ñooy cadre yi ñoom ñooy nekk ci sommet bi mhm. ñoom ñoo am possibilité peut-être pour lijjanti ay millions et des de dollars pour euh, mën a investir ci euh, ay école wala ci ay euh, hôpital donc donc benn association la rek mais association boo xam ne dañ ko xaaj en deux mu am ay lion am ak ak ay euh, Léo. voilà donc ci dëkk bu nekk nag Pape dafa am ay districts comme par exemple Sénégal moom mi ngi bokk ci district 403 à 1. boobu mi euh, ki koy gouverner mi ngi tudd euh, Fodé Amadou Diagana kooku koy gouverner mais ki ko présider mi ngi tudd. Alpha Diallo <coughs> voilà mu nekk benn affaire boo xam je sais pas si les gens comprendre nañ li ma expliquer mais juste pour vous dire de rejoindre euh, ça parce que c'est vraiment important boobu ba tey ñu ngi def liggéey bu am solo fii ci Sénégal mais malheureusement sénégalais ñu ci bëri xamuñu ko boo gisee fii Sénégal ñoom ñi ngi seen membre yi bon moo ci club bu Léwo euh, bu Moussa bokk membre yi ils sont au nombre de trente mais malheureusement benn sénégalais kese moo ci nekk donc ça veut dire que ñoom ñi ngi liggéey Sénégal sans pour ñu nekk sax ay pour autant ñu nekk ay sénégalais ah, am na ci lu important li mu wax ba ma ko ne euh, pourquoi ngeen ñëw ba Sénégal surtout que yen ñëpp ay étranger ngeen mu ne parce que Sénégal moo ñuy jox xam-xam ñu ñëpp fii la ñuy jàngee donc mm-hmm. c'est le minimum pour ñun ñu delloo leen njukkal mm-hmm. waaw donc boobu ba tey macha allah kan di seen objectif moo nekk euh, cinq points yi cancer cancer bi la ñuy xool ñu ko nekkee di éradiquer la vue l'environnement le diabète la famine instant bii ni année bi yëpp ci loolu lañu nekkoon di doxa tout le temps ñu ngi essayer di ci def ay euh, action ci cinq points yooyu loolu daal Pape ak euh, voilà nee nañ seen objectif aussi nekk na créer benn centre de traitement pour euh, les grandes brûlées loolu daal mooy seen objectif année bii fexe ba centre boobu ni mu taxawee te boobu du lion yi léo yi la je sais pas da comprendre mais xale yi ñoo bëgg taxawal loolu ñu leen di ci encourager bu baax a baax espérons que ni euh, avant fin d'année bi incha allah dina sotti voilà c'est bien ça ñoom donc dañuy def euh, bénévolat depuis très longtemps mag ñi di ko def xale yi tamit am ci mm-hmm. wàllu bu am solo Lions Club mm-hmm. ak léo yi muy ñu ndaw ñi mm-hmm. donc ak xale yooyu nga ñu présenté di euh, Léo Club Nana Aidara